donc gri bu ñu la jëlee dëgg la dañ lay jël ci benn ci ñaari côté dañ lay jël en tant que président des lutteurs en activité mais faaw ñu jël la ci làmb ñun les amateurs ne nous pardonneront pas ils ne nous pardonneront jamais nga dugg ci live bi ba génn te waxuñu ci làmb dëgg la ñun ñëpp on a même combat que le coronavirus mais say supporters man personnellement du say du ay supporters yenn mbër yi de mais say supporters seen bopp ñoom ñooy bind ay commentaires di la poser ay questions ci ay combats yoo xamante ne ce sont des combats potentiels. mais Gris mooy hmm. sa digganteeg Lac de Guiers 2 ñu ngi ma koy laaj. sa digganteeg hmm. Tapha Tine ñu ngi ma koy laaj. sa digganteeg Boy Niang ñu ngi ma koy laaj liir naa loolu yëpp ci commentaire yi mais li ma bëgg a xam man d' abord mooy Gris est ce que ren promoteur seet si na la pour bëgg tëgg sa combat. non ren promoteur yi ma seet si bari na lool. Mhm. mais da ngay comprendre ni ba ñi ci bu ñuy wax nii da ngay xam ni yow. yow ba nga xam ne yow en âme et conscience nii promoteur yàgg na la si si ay combat yoo xam ne tey. Hmm. promoteur bu bëggee tëgg combat ak mbër mu bëgg a bëre. Hmm. du ñu discuter ñaari yoon ñaari fan ci combat. maanaam hmm. discussion yi du yàgg. dëgg la maa ngi may ñëw yëpp di la approché. bu ñu waxee ak yow di nga dañu dañuy bëgg riir rek waaye parewuñu sax comprendre xam naa li ngay wax. Hmm, ah, xam naa loolu moo loolu moo loolu moo ren boo xoolee tamit dañuy comprendre ah nit day nekk ci ay situation. dëgg la comprendre waaw hmm. làmb moo toll xam ne tey euh, promoteur yu bëri amuñu ñu leen accompagner. Hmm. bëgg amuñu ñu leen accompagner ba pare. Euh, dëkk bi bu toll rek ci wàllu. loolu moo waral. loolu moo waral combat yu bari man li avant feebar avant coronavirus bi di présenté wu. li ma contacté mhm. ci ay promoteur kenn xamul lu mu toll waaye xam naa ni. mais man mhm. xamoon naa ne en amee conscient ni euh, ñi ci ëpp ñuy wax ak man pare wuñu est-ce comprendre te li ma woo ci mhm. ay pro ëpp na sa cinq promoteurs comprendre saa yu ñëwee saa wax wax am xam ne ñu yónni ay nit ay nit comprendre ñëw mm-hmm. woo la. Mm-hmm. dama di la di la xam. yoo mm-hmm. xam ne da ngay xam ne ñu si ëpp ay Ibrahima Faye na ko woo Gris Bordeaux nga ne ko di xam nga xam nga yooyu da doo ko jàpp muy dara quoi. comprendre dëgg mm. ma bëgg a xam. mooy lan ngay ragal ci Lac de Guiers 2. non aw ma problème ragal yow nag làmb ak li ma def ci làmb ak fi ma toll ci làmb nag rek. Mm-hmm. am na ragal man dépassé naa fu may demee rek day làmb man làmb man man est ce que mënati naa am combat bu ma jaaxal. Mm-hmm. comprendre non non loolu combat bu ma combat bu ma am rek. comprendre man mm-hmm. man man man man man man fi ma toll ci làmb. man dépassé naa di di di di am sikki sàkk ci mbër. gaa yëpp seen gaa yëpp sedd na buñ la gisee ci lumière bi dañ laa namm. non maa leen raw barki Seydina ak confinement maa leen foofu surtout sama gars yi nekk à l'étranger ak gars mhm. a mhm. nam xam nga ni xam nga ni yow rek yaa am mën am ci man. reer ba suur nii toog di naan caañ jàkkaarloog njaboot yi nga génne ma ci kaw balcon bi. Mhm. ma ne ma ne mais Gris ñii ci njaboot bi lañ bokk tamit ñi lay seetaan nii amateurs yi ci njaboot bi lañ bokk de. waaw moo tax laa moo tax ma def sacrifice bi ñëw toog. macha la am na solo am na solo. moo tax yow rek yaa ko mën am ci man parce que tu es frère. dëgg la dëgg la dëgg la am na solo. sama produit nga. sa produit la si si <laughs> dafa def mu sànni xeer am benn problème mais est-ce que est-ce que est-ce que euh, yow tey ji Gris te mhm. sa lag Lac de Guiers 2 buñ ko doxoon pare nga pour bëreeg moom. non làmb ji ren par pare woon naa pour ah, sama diggante yaa amoon naa benn benn benn benn benn benn benn collaborateur boo xam ne tey pare woon nañ. Mm-hmm. pour def pour def ci saison deux combats minimum deux combats. doon mm-hmm. mm-hmm. nekk en co coopération quoi te loolu amoon na lu loo ci loo ci loo ci loo ci loo ci njortoon quoi. dëgg la dëgg la mais deux yooyu Lac de Guiers da nga ko ci bëggoon boole. a ah, da ci doon bokk waaw. Lac de Guiers buy bëri ban tànk lay teg. càmmoñ lay teg. pied gauche lay teg. waaw. Ah. mais yow pied droit nga gën a mun a xeexal pied gauche da ngay am problème pour xeex ak moom. non non non pied droit ñaari tànk ñaari tànk yu bokkul. Mm-hmm. ñaari tànk yu juwaatloo. Mm-hmm. mooy ngay def kii di teg gauche kii di teg droite. Mm-hmm. nit ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk day ku ci nekk sa morom da lay déranger. est-ce que nga. xam naa li nga wax. moom tey bu mu doon bëreeg moom tey tànk may teg da koy déranger moom tamit tànk muy teg da koy déranger est-ce que nga. waaw ah, loolu da laa wax. waaw loolu moo jaadu laa wax loolu moo am. parce que man dama gis ni yow xeex. sa sa bëri xeex da ci bokk parce que bu njëkk ba nga doon def gauche droite wala peut-être ngay dóor direct ñëw ramasse riñaan sa adversaire wala mhm. song ko yegg ko fu sori sukar bi ko da nga doon li nga doon bëri sukkar bi bari na torop wala takk dama mhm. seen da nga ko takk rek forcé ko mais tey jii bi nga demee ba commencé di jël pois ci làmb commencé jël pois explosivité bi nga amoon pour ñëw di riñaan say adversaire amatoo ko parce que boo jëlee yenn poids yi boo dowee di jëlee ji songu ci suuf quatre appui rëpp dalay yomb moo tax gis nañ ni songatoo lu bari ci suuf bi nga ko jéemee ci baaboy bi nga ko jéemee ci Yékini gis nga lu la ci fekk donc léegi gis nañ ne arbitre bu sifflé da ngay xaw a téye sa bopp di privilégier xeex bi mais xeex boobu ngay privilégier ci pied gauche bu mel ni Lac de Guiers 2 est-ce que dina arranger non au contraire parce da ngay boo làmb boo ci yàggee da ngay ba am maturité hmm. day gën màgg di gën di am xam-xam ci. Hmm. boo xoolee plupart des champions bu ñu demee. bu ñu demee ba laal ay yenn âge ay quarante ans trente neuf ans la ñuy ëpp expérience. Hmm. parce que yow bëri da nga ko gagné par fukk. combat yu bëri da ko perte par fukk de jeunesse. est-ce que hmm. comprendre nga. lay di màgg sax ngay gën di am ngay gën di am xam-xam ci li ngay def. dëgg la da yoo xam ne tey perte. nga xam man na ay combat yoo xam ne tey. ay yoo xam mënuma ko maanaam duma ko ko na sax suma bopp mën naa toog ni mhm. comme ça bu démb doon tey mhm. damay damay damay damay taxaw comme waa ji ni mu taxawee moo xam mu daan ma moo xam day machine man combat yu bëri yoo xam ne mm, mbër musuma manipuler daan ma ci biir combat ay combat yoo xam ne damay ñëw ak sama agressivité ak ak li may incarné sama mhm. agressivité biir xam nga hmm. xeex ak yow juum rëbb sukk wala yooyu yooyu teg na ci su doon téye sama bopp comme tout récemment sama combat ak Balla Gaye bi passé nii di di di hmm. maanaam sama hmm. temps comme mbër yëpp mën naa la waata ci yàlla ma dese ci combat du ma du ma du ma mbër bu ma daanul dooma ma daan am na solo ah, parce que tey pour mbër manipuler ma mbër mënumaa manipuler jaay mo doole manipuler daan ma non non. non sa diggante ak Balla Gaye moom nga baal ma bul ko tudd Balla Gaye copain mu ngi ci biir ligne bi sax boucher. boucher dama la hmm. dama la jox exemple nii. man waaw non ah non déglu ma rek bu ma parax paraxee. comprendre nga ni ma jëlee suma temps. Hmm. est ce ma xamu gars yu bëri dañ naan ma dafa yàkkamti dañ ma ko yàgg reproché. Hmm. est ce que comprendre ma ay combat man dama yàkkamti pourquoi man du ma jël sama temps comme mbër yëpp. am na mbër yoo xam ne am na mbër yoo xam li tax bariwuñu ay defet ci làmb mooy dañuy jël seen temps. du hmm. ñu yàkkamti bu ñu defee attaque bu baaxul ñu taxaw. Hmm, hmm, comprendre nga. dégg nga. parce que dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko dañ ma ko yabee na ma tey saa waay làmb ji c'est pas un combat à perdre. bu song jotee nga song bu jotee reculer nga reculer maanaam. te loolu. c'était c'est la première fois de ma carrière. ma déglu ay consignes yi comme ça nii te te regretté wu ma hmm. loolu laa lay jox ci exemple quoi. Hmm. comprendre nga ko am na ci ay combat am na ci ay yu bari yoo xam ne su ma bëree woon nii tey duma ko perte. Hmm. est-ce que exemple laa jox ci loolu quoi. non je suis d'accord avec toi Boucher mu ngi lay seetaan copain Balla Gaye mu ngi lay nuyu Franc itam mu ngi lay nuyu. grand grand champion ñoom ñaar ñoom ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. ñëpp maa leen di ziar di leen big up waaw ñooñu. ñoom mhm. ñooy avenir avenir mooy ñooñu aveniru làmb quoi. Mhm. léegi boo gisee ma posé la question boobu ma ne la sa diggante Balla Gaye 2 moom doo ko ci boole sa diggante ak Balla Gaye ndax yéen waa Fass ay stratégie ngeen teg ba génn ci Balla Gaye stratégie yooyu ngeen teg bokk na ci loo man maa ngi ca làmb ja làmb jo yaakaar naa muy premier làmb bi ma def pay per view dama leen gis ci biir lamb ja nga ngeen boo làmb jooju moo la siwal neel moo la siwal yow waa waa baax na <laughs> ci biir làmb ji yow ci nga ngemboo ndax yow xam nga ni que Balla Gaye dafa munee jàpp ngemb ku mu mus jàpp sa ngemb leneen la ñuy wax Serigne Ndiaye numéro deux bi nga xamante ne moom moo tàmm bëre mbapat xam séeréer yi nu ñuy ngemboo bu ñu bañee ñu téy seen ngemb moo la ngemb jour boobu ci biir géew ba ci biir làmb ja nga ngemboo bi ngay bëreeg Balla Gaye ngemb ngemb boo xamante ne ngi njaboot maa ngi njaboot ci biir suuf tribune yi avant ma dugg ci ah ah kon xam nga ni man journaliste bi am na lu leer ci li may wax nga ngemoo ngemb boo xamante ne loolu mooy Balla Gaye du ma jàpp fenn mais loolu Gris tegoo ko ci yoon Ibrahima Faye waaw Ibrahima hmm. mais dama yaakaar ni hmm. làmb booy dem boo yem ci combat hmm. yaakaar naa ni da ngay sa adversaire nga ne lii la fooree koy xañ Mm. waa ji lii la mënee ma fexe ma fexe ko xañ loolu. Mm, mm. Balla Gaye bi muy ñëw ci làmb ji. j'espère que na mm-hmm. xam na lu mën ak lu ma mënul. Mm-hmm. man it bi may ñëw ci làmb ji xam naa lu mu foor ak lu mu foorul. Mm-hmm. kon ça veut dire que làmb loolu la rek. booy dem ci compétition da nga naan adversaire bi lii la foore dama koy xañ li foore. fii la faible ma ñëw foofu. xam naa ni mbër la boo xam ne pour mu def ay action la plupart balaa moo def action il faut mu jàpp. fu muy jàpp ci ay ngemb ci ngemb la dugal loxom mm-hmm, mm-hmm. loolu c'est loolu ñëwuñu ba ci làmb ji di ko préparé de. Mm-hmm. ah non lan nooy adversaire boo xam ne yàgg nga ko gis depuis des années muy bëre mënoo ñëw ba ci làmb ji di di improviser de def ak moom. day ñëw ba ci làmb ji ne kii tey. xam ne sa adversaire la plupart combat yi muy bëri il faut mu jàpp dugal loxom bu duggee loxom ci la gën a mën a ci lay gën am avantage. su jàppul su jàppul mën na am jafe-jafe ci bëre. comprendre te boo xoolee durant combat bi yëpp jëm la jàpp ba sonn mënu jàpp ça veut dire que avantage la boo xam ne tey lu ko du déranger la ci biir combat bi. malgré toutes ces stratégies malheureusement mënoo ko woon daan. comme si mënu woon daan. Hmm. <laughs> ok tu très bien répondu amul problème mais mais. <laughs> lu tax yow. nga hmm. toogaat ba soxal sedd ngay waat. ni ko Balla Gaye ku la ko joxaatoon nga dóor ko mu daanu. non dama gis dama dama dama dama dama ko jour boobu amul làmb da nga làmb da lamb làmb ku nekk da ngay gën a pare sa morom. Hmm. xam ne jour boobu bi ma toogee seetaanaat bi avantage yi hmm. pour daan ko ci combat bi. Hmm. li ma ko respecté trop ak li ma ko may trop ci combat bi moo tax daanu ma ko. xam parfois làmb boo jógee ci combat après tu tu as des Mm-hmm. c'est-à-dire cest à am ay regret yu bari. toogaatee mm-hmm. mm-hmm. visionné waat kaset xoolaat kaset bi nga xam ne kii tey. ah am na ay failles yu bari. surtout nag ku yàgg bëre depuis vingt ans wala vingt deux ans maa ngi bëre. comprendre c'est comme si man parfois nga daan mbër sax. nga xam ni kii sax da ko daan mais def nga ay erreur yu yu monumental yoo ko daan lu tax nga daan ko. comprendre nga sama combat Baye Mandione dama ñëw ñu dama ñëw ñu félicité ma journaliste laaj ma man ko man leen daan mais j'ai mal lutté. ma mm-hmm, mm-hmm. bëree mm. baaxul bëri naa mm-hmm. daan naa ko mais ma bëree nii bi ma demee toog ak bi xam naa ne li ma def nii tey teguma ko benn yoon ci malgré que yàlla may na ma ndam mais c'est c'est inadmissible comprends noonu la mel bi ma bëri bi ma bëri bi bëri ak Balla ba dem toog suma kër xam naa ni kii li ma ko may ak respect bi ma ko jox ci sport combat dafa bëri moo tax tey moo tax daanu ma ko mais suma ma su ma su am na foo xam ne ma fa doon teg sama bopp Mm-hmm. duñu duñu yàgg duñu yàgg sax fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy taxalee est-ce loolu ay regret